kee xaritu internet yi ñuy seetaan ci différentes plateformes yi ñu ngi ba tey ci Yoff ci cimetière Yoff ki ñu taxawal nii nag il fait partie de la famille di Mandiaye Seck di rakk ci Wally Ballago Seck moom nag kenn du ko wax lan moo waral sa teewaay fii Mandiaye ñu ngi lay nuyu di la defal di la wax si gël digaale yàlla na sarax bi yàgg seen loxo la yan kàddu ngay njëkk a yëkkati tey euh, jëmale ko ci ki nga xam ni moo di soxna su baax soo su jógee fi tey waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur ñu ñaan ñu ñaanal suñu mag ji di moom yi yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe waaw ndax mag ju baax la woon mag ju ju ju ju amoon ful la am fayda bëgg boppam te it yërëm ñëpp bëgg ñëpp man ragaluma fi mu jëm parce que parce que bu dee yàlla xol rek lay fay ak jëf ju baax kon moom feesal na ko dell waaw vraiment ñu koy ñaanal ko yàlla si xaaree àjjana yow mi nga xam ne rakkam nga euh, moom ban façon nit la woon man gis naa ni nit ku discret la euh, nit ku effacé la du fës du feeñ donte am na moyen yi feeñ sax mais nit ku nëbbatu la yow mi nga xam ni magam nga euh, ban nit la. moom ñu bari mun ñoo xam papa Thione Thione ku doyoon waar jur mën naa jur lu ne Thione Seck waaw waaw waaw ko ñaan yal na ko yàlla xaaree àjjana. waaw waaw moom moo ñu guddal wax ji sax waaye waaye yal na yal na xol yëpp tooy te xol yëpp tooy na sax digg yàlla waaw jërëjëf. li wax yéen ñaar. waaye li ñu message vocal wala téléphone. sant fee lañu mujjee gisante si kër góor gi ah, ma doon def benn bande annonce mhm. seen TV ah, bi ñu ko woowee téléphone dana ma ñëwal fekk ma bureau directement. te bi ma bi ma ñëwee wax dëgg yàlla laajuma dërëm te mënoon na ko def mhm. ah, vraiment mu nekkoon ku ñu doon jàppale yal na ko yal na ko yàlla xare àjjana waaw bàyyi nañ nañu bàyyi noonu nañu bàyyi noonu jaajëf frère kontaan jërëjëf

ñu ngi jógee ci télé yeeg rajo yeeg site yi partout di ñëw ndax so ki dem parce que ñu soxla ci askan bi nekk nekkoon jàmbaar nekkoon bañkat di liggéeykat koo wax seede bi benn la wax ñu liggéeykat la koo wax day defar kon nag li ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla bu ko cat tuuti ci bàmmeelam lii rek misaal la ci ndaw ñi mag day dem xale day dem kon nag dañ defante lu baax tay waxante lu baax ñu yéenante jàmm ndax àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex nan bu ñaaw bi ñaaw li nan bàyyi waxante lu ñaaw li def lu ñaaw àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex lii rek wane na ko baax dem na yaru liggéey kenn mus koo kenn mus wax dox ba gis yi ci média bi pour nëbbatu woon pourtant su ko neexoon wane boppam ndax waajuram mu góor liggéey na ko ci Sénégal ñëpp a ko xam muy Papa Thione yàlla ko yàlla xaare àjjana rakam di Wally Seck di ndaanaan bi mag ci Sénégal àdduna bépp muy international ñëpp xam ko yaayam nekk ku baax jëkkëram nekk ku baax muy kan Bougane Gueye Dany koo wax ñu ne la Bougane dafa baax ah te non tey am na lu ko métti ñoo ngi koy jaal gis nga damaa génnoon xam nga lii ma sol nii vraiment dama génnoon mënu ma ñàkk bañ a teew ndax Bougane ji na ma ko Wally Seck tamit nekk na ku baax nekk suma frère ah kon nag ñoo leen koy jaalee ñoom ñëpp ñoo leen koy jaalee adduna lañ koy jaale sax ndax moom it ku baax la woon koo wax mu ne ku baax la woon yàlla ko cat jiitu ci bàmmeelam loolu rek lañ koy ñaanal di ko jaale waa seen TV ñëpp ñëpp ñëpp ña fay liggéey ndax koo wax seede bi benn la ña fa nekkatul sax lu rafet lañ koy seede kon nag lii misaal la ñoo leen koy jaale yéen tamit presse bi di ko jaale ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru yàlla na ko Seydina Mouhamed teeru ñoo leen koy jaale yéen ñëpp vraiment vraiment baax rek moo am solo nan fexee baax nan fexee baax nan fexee baax tey def lu baax di wax lu baax ki dem xale ba jàkk ngeen ba ci armée ngeen koy jël loolu rafetul léegi nga ne looy soo yaay sax mais loolu rafetul loo ñuy wax nga nit néew gën a néew ëpp la néew ëpp sutura ci àddina ngeen koy jël di ko